ok Salam alaikum. alors Je suis vite fait bu je pense que beaucoup de moments que di ziar di la quoi euh, di ñaanal di ñaanal Sénégal ñaanal defal la quoi euh, di Abdou Karim activiste membre du mouvement alors Je dama dama bëgg def live vite fait bo xam ne damay wax si euh, kaw 11 détenus politiques yi nga xam ne ngi def ci kaso bi alors dafa dafa am loo xamante ne man man man je trouve mal quoi may ma war a contacter ay autorités pour ñu bàyyi ay détenus politiques yoo xamante ni ñoom xeex pour Sénégal am liberté ba ñoom ñu jot ci pouvoir bi ñoom ñu moo taxoon ñu doon xeex ñoom des fois dëgg du neex quoi des fois booy wax dañuy les gens interprètent mal tes propos ay non bul wax dara ñun xamuñu loolu quoi ñun li ñu xam xamal lan la mooy.

membre Pastef yëpp génn nañ kaso bi activiste yenn moitié activiste yëpp génn kaso bi lan moo tax ñu war a bàyyi Ousmane Sarr ak onze d'autres détenus si kaso bi quoi ay oustaz xaw ma nan oustaz xaw ma nan Diop ay imam ñi ngi si kaso bi ba tey ñoo xam dañ leen jàppoon ci affaire Pastef leen jàppoon ci affaire manifestation te ñëpp gis nañ dañoo voté loi d'amnistie boo xam dafa coiffé toute manifestation lépp loo xam ne xew na koo xam nit def na ko

ñu ngi koy wax boobu léegi xool depuis kañ lañ génn ñun depuis kañ lañ commencé libéré gars yi def na def na ñaari weer bi avant koor gi la def na un mois ñu nekk si kaso bi un mois de plus encore koor gaa ngi nii di jeex te ñun génn nañ dix jours avant koor gi ku nekk gars yi ñu ngi génn boobu léegi dafa ñaaw rafetul def naa si live nag barki démb pour expliquer quoi pour alerter maa ngi wax rek xam nga pour alerter encore pour ñu lijjanti onze détenus ak Ousmane Sarr mu ñibbi këram quoi parce que tamit am say doom ñu nekk si kaso bi ñëpp génn bàyyi leen fa ñoom ñu nekk si kaso bi ñi ñu àndaloon ñu tëj leen di leen romb génn ñëpp génn bàyyi leen fi li xew ci Sénégal yëpp xew ay 4 avril fekk mun nañu fete ko fi ngeen jot ci pouvoir bi lu nekk ñoom ñu nekk tey ba ci kaso bi furo man loolu yàlla di kii dis non bul def vidéo man damay def vidéo quoi man parce que man man li nekk sama xol dama koy wax léegi nag bu ñu leen bàyyiwul tey ci vendredi bi ah lundi incha allahu rabbi lundi midi ñun ñu ngi buntu rëbës quoi maa ngi woo tous les toute la jeunesse sénégalaise bi ñi gëm ni Sénégal ñun ci yi ñuy def ni ci la Sénégal di libéré woo réseaux sociaux yi ngeen lu réseaux sociaux yi changé Sénégal lii ni mo changé Sénégal li lañ réglé tous les problèmes du Sénégal te ci lañ gëm Fi lañ réglé fi lañ régler problème Sénégal fi lañ régler problème Abdoulaye wat fi régler problème régler problème Macky Sall problème keneen ku problème sénégalais man nak damay wax ngir yalla quoi lundi lundi inshallah rabbi midi maa ngi woote maa ngi woo képp koo xamante ni gëm nga ni Sénégal dañ ko war a libéré képp koo xam ne gëm nga ni dafa am ne ñu seen doom yi ba tey ñu nekk si kaso bi ah ñu dafa metti man loolu rek laa amoon lu may wax quoi par respect ngeen baal ma àq na waaw

dañoo ñii kaas ñii wax ñëpp naan ay euh, ay non dañ leen xaar leen nii xaar leen dañoo tëjul seen i rek wala seen i sœur wala ñoom ñu tëj leen ci kaso bi fàtte leen foofu